assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki internet yi suivre seen plateforme bii di muslim sénégal production di mms pro 221 mms pro 221 mu ngi leen di jaajëfal te di leen ndokkeel ci seen taxawaay bu rafet ak seen jàppale bu am solo depuis bu mu lancé plateforme bi ab chaîne la boo xamante ne nii lu ko tax a jóg mooy sensibilisation mooy leeralal julit ñi seeni mbiri diine waaye aussi tamit baaxe doomi aadama yi ay mbir yu leen mën a yokk yu leen mën a jëriñ ci seen ay mbirum adduna seen mbirum alaxira ak seen mbiru diine waane mbokk jullit nii ku seetaan vidéo yi ñuy def da ngay yëg ne ay effort yu jéggi dayo moom la ñuy déployer pour mën leen a jox vidéo yi nga xamante ne ni yéen koy am saa su nekk seeni téléphone bi ko seetaan. ci lu tolloog fukki weer ak juróom ñu am yéene gën a dëgëral taxawaay bi ak gën koo yaatal ci jënduk ay matériel ak i équipement objectif bi toll ci deux millions francs CFA maanaam ñaari millions. actuellement danoo nekk ci beneen dimension danoo bëgg a yéeg dimension bu ñu nekk dañ ko bëgg a dem ci beneen bu gën a kawee mooy que ne dañoo aajowoo ay matériel MMS TV dafa aajowoo ay matériel pour liggéey bi gën a ñoŋ pour qualité de vidéo bi qualité de son bi gën a mën a jàll njëriñ yi gën a mën a yaatu bi ñu xaymawee nag matériel yi nga xam ne aajo woon nañ ko pour mën a gën a mën a soqali liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def ci chaîne bi loole toll na ci budget wu 2 millions. ci loolu MMS Pro 221 ak oustaz Ibrahim Gueye di lancer campagne levée de fonds opération dooleel mbaax ci MMS Pro 221. ñoo ngi lay ñaan nga participer. te nga mu participer. ngir participation man ngeen ko jaarale ci Orange Money Free Money wala Kpay ci numéro bi di 76 661 83 23. MMS Pro 221 juste l'essentiel pour la sérénité l'opportunité et la priorité.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 di saxal ne Muhammad ibn Abdillah jaamub yàlla di ndawal sunu boroom texeeg mucc ñeel na ñi ko gëm te jaar ci aw yoonam ba bés penc mbokk yi maa ngi dénk sama bopp di leen dénk ragal sunu borom yàlla tabaraka wa taala ci jëfe ay ndigalam te bàyyi mbooleemi tereem ginnaaw loolu mbokk jullit ñi nanu xam ne sunu xutbaab tey dafay jëm ci topp yonante bi alayhi wassalaam lu war ci ab jullit la وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم سونو بروم يالا سبحانه وتعالى موتان تان كوني واخ محمد ابن عبد الله دال ديكوي يوني تي اك نيب يوني كو تي دين تودي دين جوجي دي الاسلام يونت بوبي ام ميسيون بو تولني ليرال دين بمو لير ناني تي مبولم دومي ادمي ني خيس اك ني نيول سونو بروم دال ديكوي جوخ اب ميساج tubbee ko alquranul karim ngir yonent bi alayhi salaatu wasalaam leeralal doomi aadama yi ana lu borom bi namm namm ci ñoom loolee nag daf ñuy warlul top gi nga xam ne war nañ koo topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam diine yàlla jii amul lenn loo xamante ne des na ko jëfe lu dul lu ñuy balloo ca alquran lay doon te daal di ci déglu yonent bi alayhi salaatu wasalaam buñ bëggee suñu borom fay ñu yiw yonantu bi alayhi salatu wassalam lolé mo nekkon mission motax ci alquran lu bare yon ci ay sar sun borom nan top len yalla top yonantu bi alayhi salatu wassalam manam ñaari mbir yoy du takaliko ñaari mbir yoy du takaliko de suñu top yalla te top yonantu bi alayhi salatu wasalaam maanaam manoo fee jéggi yonantu bi dem di yalla lolou man ta nek so beugé xam li yalla namu ci yow nga xam naka ngay jamo yalla déglu rasulillahi alayhi salatu wassalam top rasulillahi alayhi salatu wassalam mënta ñàkk mukk ci àdduna mënta ñàkk maanaam mënoo romb yonent bi ngir àgg ci sunu borom tabaraka wa taala sunu borom nee na ci alquran ci suratu nahl verset 44 sunu borom nee na wa anzalna ilayka dikra yonent bi lay wax ne ko ñun ñoo wàccee ci yow alquran li tubayyina linnaas li tax ma wàcce ko ci yow muhammad mooy ngir nga leeralal nit ñi li tubayyina la wax linnaas yi ngir nga leeralal nit ñi lu muy leeralal nit ñi ma nuzila ilayhim li ma wàccee ci ñoom muy diine lislaam kon yonent bi mission ci kaw suuf moy mu leralal nit ñi seen diine leralal nit ñi seen diine leralal nit ñi naka la ñuy jamo suñu borom tabaaraku taala motax amna ay jaamu yàlla ci diine yonent bi yamul ci wax rek ne def leen dedet waye da def ne kaay leen def comme ni mako defé lu melni julli suñu borom tabaaraku taala bi mi indi julli ci xet wi dafa yebal jibril jibril bi mi ñëw di indi julli pratique bi la indi indi wul ab téré bo xamne da nan am ubbil téere bi nga jàng lépp jullee ngi ci biir déedéet demawut noonu maanaam pratique bi la suñu borom jox jibril ne ko demal ci muhammad jibril daal di agsi daal di jiitu yonent bi topp ci ginnaawam sahaaba yi topp ci ginnaaw rasulillahi jibril daal di ne defal ni may def jibril kabbar rasulillahi kabbar jibril jàng saar rasulillahi jàng jibril ruko rasulillahi ruko jibril toog yonent yonent bi toog jibril taaya yonent bi taaya ba mu seen ma mu ne ko nii mooy di dem yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu sëlmalee gestu saxaaba yi gis ngeen ni def mu ne ko waaw mu ne aca noonu leen ko defee noona aj màkka it kazalika bi aj màkka jotee daa war gëleemam ànd ak saxaaba yi ñu dem ba màkka mu ne leen bu leen laaj bu leen def dara xool nañ li may def rek ngeen def noona saxaaba yi topp ko la muy def saxaaba yi di def noonu noonu lañ ko toxalee ba mu agsi si ñun kon yonent bi alayhi salaatu salaam mission mooy muy leeralal doomi adama yi diine borom bi tabaraka wa wa taala yàlla waxaat ci alquran ne wa ma anzalna alayka alkitaaba dane suñu bor dane suñu borom dane yonent bi wàccew ma ci yow alquran illaa lu dul li tubayyina lahum alladi ixtalafu fii ngir nga leeralal nit ñi seen wuute yi nga xam dañ koy dañ koy am wa hudan wa rahma alquran bi nekk ak njub nekk yërmande li qawmin yuminuuna ñeel ñi nga xam ne ñoom ñooy way gëm yi loolu mu ngi suratu verset 64 kon mbokk jullit ñi suñu borom tabaaraka wa taala sax daf ñu digal saa su ne ñuy jéem a topp yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci suñuy mbooleem jaamu yàlla ab julit daa war di laaj boppam mooy moom fan la toll ci bëgg yonent bi alayhi salaatu wa salaam boo ca paree loolu doyut bëgg yonent bi doyut waaye fan nga toll ci topp ko fan nga toll ci jëfe ay orientations fan nga toll ci jëfe li nga xam ne mooy ay njàngaleem nga xool sa bopp ci yonent bi alayhi salaatu salaam ndax yaa ngi soloo ni mu daan solo ndax yaa ngi jëflanteeg say soxna ni mu daan jëflanteeg ay soxnaam ndax yaa ngi comporté woo na mu daan comporté wo ndax njàngale lislaam yaa ngi ci dippee ko ci yonent bi alayhi topp yonent bi nag man da ñàkk soo bëggee texe loolu suñu borom moo ne yaa ayuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula suñu borom moo ne topp leen yàlla topp yonent bi gis nga loolu daa bari ci alquran bari waay goo xam ne ëpp na ñaar fukki laaya suñu borom di digle toppal yàlla topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam boo demee ci suratu ali imran verset 132 suñu borom nee na wa atiu llaha na ngeen topp yàlla wa rasula ak yonentam bile laallakum turhamuun su ngeen bëggee ñu texe leen suñu borom daal di waxaat ca suratul anfal verset numéro 1 wa atiu llaha topp leen yàlla wa rasulahu ak yonantam bi in kuntum muminina bu fekkee way gëm ngeen suñu borom waxaat ca suratul anfal verset 64 46 wa atiu llaha wa rasulahu topp leen yàlla topp yonantam wala tanaadaw bu leen xëccoo fa tafshalu ngeen wuute daal di échec wa tadhaba riixukum seen gëdd daal di dem wasbiru na ngeen muñ inna inna allaha maa sabirin yàlla mu ngi ànd ak muñkat yi suñu borom daal di waxaat ca suratu nuur verset cinquante six wa aqimu salaata na ngeen taxawal julli wa aatu zakata na ngeen joxe azaka mel ni dañ ko ne waaw yàlla nan la ñuy jullee nan la ñuy woore mu ne wa atiu rasula topp leen yonante bi ci loolu maanaam dee leen jullee ni yonante bi doon jullee dee leen jaamoo yàlla ni yonante bi doon jaamoo yàlla moo tax ñaari condition yu am soo moo ngi nii nga xam ne képp koy jaamukatu yàlla bëgg yàlla nangu la bàyyi ko xel ñaari condition la man ta ñàkk soo bëggee say jaamu yàlla sunu borom nangu ko faw nga teg ko ci ñaari condition yooyu bi ci jiitu mooy tawxiid mooy wéetal sa borom ci li ngay def sellal li ngay def booy julli nga julli te yàlla rekk tax booy woor na yàlla rekk tax booy joxe asaka na yàlla rekk tax booy wax na yàlla rekk tax booy jëf na yàlla rekk tax booy jóg yàlla rekk tax booy toog na yàlla rekk tax lépp looy def xool ci jëmmi borom bi tabaaraka wa taala génn ci mbindéef bul def dara ngir doomu aadama ak doomu aadama googee lu mu mën a màgg ci yow lépp looy def ne yàlla tax lol day mom lañu yàlla sant ci suratul bayyina lu yàlla wax wama umiru la wax wama umiru illa li yabudu allaha mukhlisina lahu din suñu borom neena doomi adamay ha santuma len dara santuma len dara lo len sant illa li yabudu allaha lu nañu jaamu yàlla kese mu ne déedéet jaamu gi doyul le mukhlisina lahu din sellal len diine ji mooy lépp loy def ci diine na yàlla rek tax loolu mooy condition bu njëkk bi soo buggee ñu nangul la ñaareelu condition ba mooy topp rasulillahi ci ni ngay jaamoo yàlla maanaam lépp looy def ci diine na doon la yonante bi mos a def lépp looy def ci diine na doon la yonante bi alayhi salaam mos a def loolu luy firnde bi lan mooy wane ne yàlla du nangu ab jaamu yàlla joo xamante ne ni yonante bi alayhi salaam maanaam jàngaliwu ko wala royewoo ko ci moom yonante bi alayhi salaam daa mos sa ànd ak saxaaba yi dem ci dëj ci armeel yi ñu suul ba ak gal mu toog ba mu yàgg mu ne sama xeet ñëppay dugg aljanna muy wax ju neex ju neex a dégg mu ne xeet wi moom bu leen tiit bu leen ragal yéen ñëpp ajjana ngeen di dem saxaaba yi kontaan ba mu yàgg mu jóg taxaw daa di ne ah lu dul ki bañ lu dul koo xam ne moom daa lànk moom bañ saxaaba yi jàpp seen gémmiñ jàpp seen gémmiñ daa di ne kan mooy bañ a dugg aljanna yonent bi ne ki ma topp man ki ma topp ki jaati saw yoon ki jaamoo yàlla ni may jaamoo yàlla koku moy ki dugg aljanna waye ki xamut man ci lima nekkon daldi jaar wenen yon koku moy dem sawara koku da bañ yal yalla musal ci lolé kon sunu borom daf ñu digal julli digal ñu wor lam te teg mooy wa atiu rasul top leen yonent bi alayhi salatu salaam laallakum turhamun su ngeen top yonent bi dinañ leen yërëm mbokk julit ñi borom bi waxat ci suratu muhammad alayhi salatu wasalaam verset 33 ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa la tubtilu a'malakum sun borom ne yeen ñi gem yalla top leen yalla ati'u Allah top leen yalla wa ati'u Rasul ngay and top leen yalla top yonent bi top rasulillah wa la tubtilu a'malakum bu leen yak seeni jëf ci top leneen ma top ñeneen kon abdul ci l'islam da ngay teggu ci tawhid lépp looy def na ko tawxid lal lépp luy bokkaale moytu ko lépp luy bidaa moytu ko toppal yàlla ci wéetal ko ci mbindaa fanam yi wéetal ko ci li muy def wéetal ko ci kàttanam ak man-manam gëmal na def ak bindi moom yàlla dénk ko doomu aadama def ak bindi moom suñu borom moo ko téyel boppam yàlla mooy def yàlla mooy dindi wa in yamsaska allahu bi durrin fala kaashifa lahu illa hu wa in yuridka bi xayrin fala raadda li fadli sun borom neena buma namme ci yow lor neena kenn ku meuna dox sa deugante ak lor amut neena na namme ci yow xéewal nak kenn munu la xagn gi ba aduna di jeex digante asaman sek suuf si lu fi am te neexut yalla amut ba aduna la wax di jeex ba aduna di jeex ba yalla lem suuf sek asaman si digante asaman ak suuf li fi xew sun borom a doxal lolou dang koy gem te lu ci mom ko sa bop borom bi nee na moo tamuutunna illaa wa antum muslimuun bu leen dee mukk lu dul da ngeen a jébbal seen bopp yàlla keneen koo fi jébbal sa bopp rek yow yaa tooñ bu dul yàlla bu leen dee mukk sa borom moo wax bu leen faatu mukk lu dul jébbal ngeen seen bopp yàlla seen dund jii li ciy baax li ciy safaanu ak lu meuna a doon jox nga ko sa borom tabaraka wa taala jeex tak ci sa borom tabaraka wa taala mom ak say mbir sukkandiku ci mom xamne sa dundu amut dara lu ci neex ma lu ci nakari lu dul ne moom suñu borom moy ki koy doxal su ko sa xel dal di dal ci mom nga bayiko ak sa bopp so paree na nga jema xol ana lan la yonent bi doon def ci kaw suuf nga jéem ta def sa lay katan laaju ñu la sax nga def lepp laaju ñu la nga def lepp suñu borom ku beuri yermande la defal ba sa kemtu lay katan fam yam nga ne sama borom fi la ci yam wallahi boo faatoo yàlla mottali ci yërmandeem bokk jullit ñu yowmal qiyaam ñaari mbir yii moo mën a indil nit ki gàllankoor muy bokkaale ak bidaa te loolu mooy li gën a bëri ci réew mi ñun tukki nañ dem nañ ci ay bitim réew la fa nekk la fa li ñu ci réew mi rek moo ne ci bitim réew waaye damay wax ci réew mi laay waxee wallahi lazi laa ilaha illa huwa doomi aadama yi boo leen di xool li ñuy def nga toog nga mel ni ku rocceeku ci société bi di càmbaraat di di xool li nekk ci téere yi di xool li nekk ci alquran di xool li yonent bi daan def nga xool nit ñi li ñuy def da ngay jàpp ne dafa mel ni dafa am beneen diine bu am ñun dafa mel ni du lii la fi rasulillahi bàyyi woon coow la bari na coow li bari na lool waxkat yi bari na lool réseaux sociaux yi gars yi lu leen neex la ñuy wax lu leen neex loo xam ne yow da ngay dem ba tiit da nga naan est-ce que man li ma nekk nii loolu la ngir nit ñi ni ñu mabbe rek jëm ci benn mbir yow mi nga xam ne àndoo ceeg ñoom soo moytu da ngay tiit da nga naan man est-ce que est-ce que est que man li ma nekk noonu la ngir doomi aadama yi mbir yi ni mu ñàkk leere ci ñoom te wallahi lazi laa ilaha illa huwa man ci li ma gëm te ma jàng ko ci diina yàlla jii mu leer ci man mooy yàlla duñ dugal sawara ngir suñuy bàkkaar man am naa njort bu rafet sans borom am naa njort bu rafet sans borom ne yàlla duñ dugal sawara ngir suñuy bàkkaar donte nag menacé na ci wax na ci waaye suñu borom ak yërmande ju bari ji man am naa njort yomal qiyaam bu dee suñuy bàkkaar dong dong ak suñu jëmm yii yàlla dinañu ko baal mbokk bi suñu borom tabaaraka wa taala moo ne inna allaha yaxfiru zunuba jamian borom bi nee na doomu aadama mënta def bàkkaar bu ma ko mënta baal loolu kay xanaa leer na kii moo baax kii moo bëri yërmande suñu borom nee na boo dikkee yowmal qiyaam yow sama jaam dikkee yowmal qiyaam indi ci ay bàkkaar lu tel ni peppi suuf te loolu mënta ne indi ci ay bàkkaar lu tel ni peppi suuf ma xool bàkkaar yi càmbar ko gis ma ci bokkaale nee na ma xëpp ci yërmande mu faar ma dugal aljanna sa sama yoon du ne ci keneen yàlla mooy ki wax lii yonent bi suñu borom moo ne yonent bi moo ne ku ñëw yowmal qiyaam seede ne waruñu jaamu kenn ku dul yàlla muy tawxiid dëggal ne man mii rasulullah yàlla moo ma yónni muy sunna seede ne ay mii du doomu yàlla waaye jaamu yàlla nga gëm loolu gëm aljana gëm sawara boo faatoo yàlla dugal la aljana ak loo mën a indi ci bàkkaar ak loo mën a indi ci bàkkaar bu dee say bàkkaar dalaa tiital yonent bi alayhi salaatu salaam nee na boo xëyee benn bés rek nga ne subhaanallahi wa subhanallahi wa bihamdihi loolu fi nga toog nii léegi di ndékki mën nga ko wax subhanallahi wa bihamdihi téeméeri yoon yàlla jéggal la say bàkkaar donte daa tol ni duusu géej kon bàkkaar yi mbokk julit ñi yàlla nañ ci yàlla musal ëpp naa def ab julit di xus ci bàkkaar ëpp naa def waxuma ngir dalal xel yi déedéet waaye damaa bëgg bàyyiloo xel ci lu gën a rëy loolu muy lan muy bidaa ak bokkaale bidaa ak bokkaale ni mu mel ci réew mi kenn xamu nu mu toll te yonent bi suñu borom tabaaraka wa taala moo ne inna allaha لا يغفر ان يشرك به بروم رينا دوما بالي موك كيما بوكال با ديتي لولا سونو بروم داني فما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه كو بوكال ما من يالا با ديتي لولو ارامل نات ليغا خامني موي موي سوارا موي الجنه يالا نتي يالا مسل اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا اليه انه كان بالمؤمنين رحيما ام ام 221 MMS Pro 221 الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على المصطفى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين mbokk julit لني li ñuy jeexalee benn لا la حديث xam ne xadis bu siiw la xadis boobee Arbaad ibnu Saariya boo ko déggee ci yonante bi alayhi salaatu salaam mooy dernier discours bu yonante bi def loolu dafa am solo ci mbir mi ñu xam ko mooy dernier discours bu yonante bi jàkkaarlook jullit ñi ca jamono jooja def ko dernier discours ku nekk xam nga ne euh, boo amee sa kilifa muy dund ak yow ba war a génn àdduna daal di taxaw ak yow di la waxtaan te xamal na la waxtaan bi may waxtaan ak yow mooy sama dernier waxtaan. loo woyof xel woyof xel waxtaan woo mën nga ko bañ a fàtte ngir ne mooy waxtaan wi mujjee waxtaan ak yow te kilifa goo kilifa goo fonk la goo respecté la saxaaba yi tolloon nañ ci bëgg rasulillahi bu tuflee ñu for lekk dañ daan njëkkante ay tufleem bu yorante bi di tufli bu ko dee topp ñu njëkkante ko luñ ci for dañ koy wan dañ koy lekk bu yorante bi fompoon bu ñaqoon nii bu ñaqoon da gis ku ñëw fomp ñaq gi diw ko ci kawam ku fomp ñaq gi di ko bu daan jàpp saxaaba yi dañuy dékk njàpp li dañ koy dékk njàpp li di ko naan ak a moom rasulullah alayhi salaatu salaam saxaaba yi bi ñu ko bëggee woon gëmuma ci àdduna mbindeef mu leen raw ci bëgg yonante bi alayhi salaatu salaam aboubacarin saddiq ànd nag yonante bi alayhi salaatu salaam ñuy dem jóge Makka di dem Médine muy seen gàddaay ga ba ñu àggee ca xuntu wa dégg ngeen histoire bi aboubacarin dana yonante bi alayhi salaatu salaam taxawal ne le ba dugg ci xuntu wi muy pax mi daal di koy nettoyé setal ko ba lépp lu la fa mën a gaañ ma génn aboubacarin daal di dugg ci xuntu wi pax mi daal di koy nettoyé ba mu set la fa nekkoon ci ay pax mu jëm koo fatt mu des benn pax bu nekk ci kanamam te mënta fatt pax mi ndax amul lu mu ko fatte mu ne rasulillahi alayhi salatu wasalam ak sil mu ne pax mi set na mën ngaa ñëw yonent bi ñetti ñett daal di àgg ci biir pax mi yéen Abubakar toog jël tànkam taf ko ci bën bënu pax ma daal di ko fay taf toog yonent bi alayhi salatu wasalam ñu toog di waxtaan ba gëmmentu dikkal rasulillahi alayhi salatu wasalam mu daal di jël boppam bu tedd ba teg ko ci pooji Abubakarin Saddiq ñuy waxtaan ba yonent bi di nelaw fi muy nelawee ndeke am na jaan ju nekk ci biir pax mi jaan ji daa bëgg génn pax mi mënta génn ndax abu Abubakar mu ngi taf tànkam ci pax ma jaan ji di matt tànku Abubakar Saddiq di matt tànk bi muy muñ muy metti bu koy muñ muy metti te am na ñu wax ne sax jiit la bu koy matt muy muñ muy metti Abubakar Saddiq bëgg la yëndal tànk bi ngir yàqal rasulillah alayhi salaam ay ay nelawam mbir mi di metti ba bët yi di génn rongoñ la ñoyé mo topp ci lexu yonente bi alayhi salatu salaam yonente bi dal di yeewu gis abakir di joy mu ne ko loy joy mu ne ko am na lu may matt ci bir pax te bëggumaa yëngal sama tank ngir ngir ngir déranger la xolal ñi fiñ tollon ci bëgg rasulillah xolal ñi fiñ tollon amna am benn soxna ba tuddu ummu ammara dañu demoon ci xex benn yéefar tollu fele jël xéjam vii sa yonente bi alayhi salatu salaam ba dak dënn bi bayyi fitti gi ab soxna ab soxna moo gis fitt gi di daw jëm ci rasulullah mu gàttandu ko ak dëndam jigéen mu gàttandu fitt gi ak dëndam xoolal ñii fi ak àggoon ci bëgg rasulullah alayhi salaatu salaam yonente bi taxaw ak ñoom ne leen déglu leen sama discours bii may def ak yéen mooy doon sama dernier discours ak yéen discours boobee li ma ci bëgg a indi rek yonente bi dafa ne innahu man yaash minkum fa laay jeexalee dafa ne innahu man yaash minkum déglu leen bu baax képp ku gudd fan ci yéen fa sa yara min baadi ku gudd fan ci yéen sama gannaaw la wax sama gannaaw mu ne fa sa yara ixtilaafan kathiran dana gis ci bir l'islam di ay wuute yu bari ay wote yu bari ay kurel yu bari dañ ko ci gis sahaba yi nak bu boobaa nu ñu def mu ne baba fa alaykum bis sunnati wa sunnati alxulafai rachidin wuute yu bari yoy nga xamni dañu muddu jamono wote yu bari yoy nga xamni dañu muddu jamono discours yu bari yoy nga xamni dañu muddu jamono kurel yu bari yoy nga xamni dañu muddu jamono kër karaan yu bari yoy nga xamni dañu muddu jamono lu ci mën ñëw rek bu boobaa bu len jaxle nek len ci lima nek jamono ji rek nekk leen ci li ma nekk jamono ji mu ne wa tamassaku biha téy leen ko katamu leen ci doyul mu wa addu alayha bin nawaajis matt leen ko ak seen bañ bañu dëgg kat karampane leen téy leen ci bu baax a baax a baax te ngeen bàyyi yeneen yoon yeeg yeneen yëf yëfande ak coow bari li c'est très simple yàlla nañu yàlla wërsëgal loolu kon mbokk jullit ñi noo ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq yàlla nañu yàlla wërsëgal bëgg rasulillahi yàlla nañu yàlla wërsëgal bëgg rasulillahi ak comprendre lan mooy bëgg rasulillahi alayhi salaam yàlla bu nu yàlla faat mukk lu dul def ñoo teg suñu tànk fa yonent bi alayhi salaatu salaam tegoon tànkam yal na yàlla saafara suñuy jàngoro yal na yàlla def jàmm ci réew mi yal na yàlla nangu suñuy jaamu yàlla te jéggal nu suñuy rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna ya mawlana innaka anta tawwabu rahim